waaw baax jërëjëf ah loolu publicité la te loolu yaakaar naa mooy dund mooy dundal émission mooy dundal télévision ñu ngi ci am mbégte lool nag di nuyu Père Gora bu baax Père Gora ku taxaw fii rek war nga koo nuyu. Mm. ndaxte bokk na ci doyen yi ñu fekk ci làmb ji. waaye dafa am ñaari mbër yoo xam ne tey jii ñu war a bëri la kaat te lii ñu def nii dafa dama koo gëj a gis ci làmb ñëw te yoroo fukki béjjën ak juróom-ñaar yoroo ñeenti siwo ñëw teg ko sa kanam sonal nit ñi waaye kii de benn biteel su ndaw la yor xaw ma Evian la xaw ma lan la. ndox la xaw ma lu ci des. ki ci des moom yorul dara waaye lii yaakaar naa ni mbégte la kin ci jëkk nuyu nag mooy Zarko. Zarko ñu ngi lay nuyu dëpp depuis sa combat toogaay bi demeegul noonu dëgg la toog noonu. waaye yaakaar naa nit da nga ci loolu war a duggaat ci leneen te wax Grand Yoff mi ngi koy faral di wax dañ laa yónni yàkkamte la nuyu nañ la. waaw père ñu ngi lay fay di kontaan ci l' ensemble zone 7B di nuyu assistance bi fi nekk yëpp. di nuyu mbër yi suma suma suma nawle yi di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu suma adversaire di nuyu góora bu baax a baax di nuyu service d'ordre bi fi nekk di nuyu géwél yi. di ñu nuyu caméraman yi di nuyu ñëpp di euh, nuyu euh, Makan di kontaan ci liggéey ak moom. zar doo xaw a aj tuuti. Ah, bar laalu ma sa mbaxana de bàyyi sama mbaxana rek mu nekk. di nuyu bu baax a baax ñu fi nekk ñëpp di kontaan ci grand bi lu mu lu mu ñu témoigner di kon eh, di nuyu aussi euh, sponsor bi. muy Père Gaston. Eh, lépp moom la man Gaston la li tax ma bëgg ko Père. fi mu indi làmb moo sori Père Gaston fi mu indi làmb dafa sori parce que dafa xam làmb làmb daf ko defal lu bëri mu jëlaat lépp defaat ko ci làmb kon donc tey bu ñëwee jóge Europe ñëw une première fois mu tëgguñu dans notre carrière contentement lay doon ci loolu moo waral ñu def lii nii pour décorer ko ko lii lii nii di di sàkku ñaan ci moom di ko wax mu ñaanal ñu comprendre nga moom ak kii ñoo ànd makan kii boo demee. si yaata jullikaay joxal joxal ñu ko père. comprendre ne ko ne ko nee na xam nga moo la jox lii am na kaan am na euh, kurus am na kaamil lépp. saa yu mu fàttali ñu ñaanal ñu parce que moom dafa tax ñu bëgg a làmb. parce que si je me rappelle bien à notre génération ci la ñoom Modou Lo doon bëri claf. ñun ñëpp ñu amoon envie dugg ci claf bi. claf bi waaw comprendre nga. kon donc moom munuñ ko bañ a bëgg ko bañ a bëgg dañ koy bëgg par force. dëgg parce que fi mu yóbbu làmb la. loolu aussi xam nga ñu delluwaat di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fi teew surtout ñi ma àndal ñoom euh, Matar Guy gi euh, non no violence di nuyu Vieux Ngolo xam nga sama copain bi ko demoon jëli. waaw Wëz VIP. comprendre nga di nuyu sama soxna di nuyu sama yaay di nuyu l' ensemble zone 7B. Bécaye fi may tëjee sama nuyoo nag mooy sama maam ajaratu Sall Ngaari Sall Ngaari waaw lam tooro buuru gede mhm. waaw borom fukki penc yeeg ñaari ndeysaan ajaratu Ngaari kooku ci penc yi la bokk waaw kooku mooy borom cëddeem yàq jëf nguy salaat ak ngot ak xor mais kon yow fu nekk nga bokk yow waaw <laughs> la saraxu ndakaaru Bécaye maa ngi nii xanaa doo xool maa nii <laughs> dof am nga xew re <laughs> daf am nga xew rek waroon jaar nii rek doof daf dama lay géem barke Serigne Bamba dama lay géem yow xam nga loolu sax man sama moroom du ma menacé mooy génn taan bi de man Europe laa bàyyi ñëw fii ndës te damay fayeku par force saa woon jaar de nga juum de. Badaye nuyoo na ba caw caw yu métti ah, loolu doo wax moom moo koy wax yow déglu rek mel ni tekk rek. tontu ko di nga tekk rek booy nuyoo nga wax. aara rek dina nuyoo bàyyi ko mu wax ba pare. booy te ndaw daa doo wanaa laawal maa booy. billaay walaay sa sa ngannunoo a meerata bakan de boy bakan so artima boy yo sehelma ɓe jaltude hmm. billahi wallahi min wima noon minen fof ko danugol min jiiɗi ɓeɗo ko kalta ko allah ara dum de li ma doon wax nag waxuma benn wax boo xamante ne buy dérangeant la wala boo xamante ne manque de respect man xawma loolu déranger wuunu li ngay wax respecté làmb làmb c'est culture boo xam ne man dama ko respecté parce que làmb Bécaye dafa neex de. <laughs> Ah. gis nga bay gañe nii. dafay neex de. <laughs> ah, ah. neex de ñu tungo ah. ñu tungo kii kii du ma yàqal de. <laughs> ah coolee bëri rek du yàqal de. pourtant booy bu booy bu ambitieux. non xam naa loolu ku ambitieux la ku xam lu mu bëgg la. ki xam lu mu jëm la waaw waaw. waaw mais moom il a le temps il a tout son temps devant lui. te na combat bi li mu ko mën a yóbbu fi mu ko mën a yóbbu. moom de xam après la koy xam. moom am na temps pour xam defaraat boppam mais man aw ma temps man màgget naa ba pare. yow ma génne leen slogan ne leen maa mën maa ëpp doole maa gën a féete paa gone gu ma ci moytuwul ma noq la <laughs> jërëjëf laay tëjee ñaamu ndaw nuyu nan la ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sama ñaari waajur ñaar sama papa fu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ak sama mag bu doon toog sama seex ak sama mag bu tëdd daaru xaadim di sama dëkk papa waa daaru Moussi maa leen nuyu bu baax di nuyu sama kilifa suma lépp maam Thierno borom daaru waaw di nuyu waa Sikko waa daaru waa daaru maa leen nuyu bu baax waa daaru boo si sama dëkk papa Colli sàkk si ñoom bu baax a baax a baax di nuyu sama sama kilifa suma lépp Abdoulaye Ndiaye jay seen ñoo ma def mbër hmm. waaw di nuyu Makan di nuyu Père Moussa Badji di nuyu sama Père Mansour fi nekk ñëpp ak ñu ma àndal ñoom dund gars yi xam nga di nuyu waa Guédiawaye ndeysaan bu ma leen wax sax fi laa jëm waaw di leen nuyu gis naa taxawaay bu baax a baax a baax maanaam làmb ji làmb ji ma kenn conseil maanaam làmb ji leen mooy slogan bi waaw moo ñaa kenn. ñaamu ndaw xoolal fii. xoolal fii waaw làmb ji non damay wax ba pare man naa ñëw si moom moom la tey rek. Ah. maa gën a xiif hmm. yaa ngi gis maanaam làmb ji. waaw ah. dama bëgg waa Géewaay ñu bu baax a baax maanaam làmb ji leen mooy slogan bi mooy ñaa kenn du la wax. buñ la wax dara waaw. loolu mooy solo bi bëgg dégg ko dama bëgg maanaam képp ku suma supporter bi ma ngi seetaan mooy ñaa kenn du la wax. Hmm? waaw est-ce que xam nga fi nga dugg. waaw xam nga man tey suma suma objectif du Zarko. Hmm. waaw dama bëgg a nekk roi des arènes ci yoon bi la de. waaw dëgg la champion la moom mooy sant mu ko sant bu baax a baax a baax yow bi kaay ma ko la fi teen tey mbër Zarko man leen laay bàyyi xel ci yow muy maam ci na borom taal bu ñu bokk te bu ñu ko séddoo. bu dul loolu bu dul loolu. saa yi man góor dox sama kaw dama lay wax góor dox sama kaw dama ni la dama ni la góor dox sama kaw dama ni la góor dox sama kaw góor dox sama kaw dama ni la góor dox ne paalaate dama lay wàccee dama ne man góor sama kaw dofee dama ne góor du dox sama kaw avance ndànk ndànk ndànk rek ndànk bàyyi ko bàyyi ko ba ñoon bàyyi rek ngay taxaw eh ñoon bàyyi ko taxaw ñoon bàyyi ñoon bàyyi ko góor du dox sama kaw ñoon génn wax rek lay wax rek dama ne la yow dama ne la góor du dox sama kaw man jël duuma loolu góor du dox sama kaw laa la eh toogal man jël duuma loolu yow sax wuy ma góor du dox sama kaw eh wuy ma toogal parti maam toll Ibra Faat dama dal mo yaakaar dargo yow la yow man ñaanu mo 100 francs man man bëgg nga déglu bu baax a baax a baax man dama man sama yaay dama ko doyoo ba a eh booy toogal. dërëm. <laughs> man boo yee waaxu boo ko mësiree. man man de eh boo yee waaxu boo ko mësiree. nga sa morom morom mën a. doo gën nday taan bi. yaa ngi nday taan bi yow yaa ngi nday taan bi. Eh, nga ragal nga. yaa ngi tàppale yow. puxatu bon yaa ngi nga ma mi ne e ñaata ko toog leen e ngor toog leen e Zarko e Zarko toogal. Zarko garaaw Zarko garaaw Zarko eh garaaw. waaye tous doo doon fay maa may la doo saafara. day jéem a waaxu nit ñi. toogal. première question première question kaay defaral ma fii waay. bàyyi leen bàyyi leen Eh, Thioune. waaw ah, sama gars yi. affaire police yi ah. ngeen baal ma àq ñaari mbëri li ñu def nii. mooy face à face. mooy face à face. ñu miin ñu bay dépasser limite yi. manqué wuñ ñu de respect. manqué wuñ de respect ils font leur boulot. ñu ko ñëpp comprendre ne noonu ah jarul intervention jarul atte des fois ñaari mbër jóg di jëflante di waxante intervention yi dugg ca mu jur leneen mais ñoom ñaar. seen ay kilifa fii te ñoom ñoo tam ay kilifa lañu ñu bàyyi leen def seen show comme niñ ko bëggee loxo du jóg mbokk du am. jërëjëf ñaa bu ndaw yaa doon wax ah. waaw man mais ñaa. waaw man dama lay ñaan rek. waaw père waaw bu toogal fii. parce que xam nga lii c' est la première fois sax ma gis nga def. waaw waaw man mais. <laughs> père <laughs> ah, kii day daw kii day daw bolo kii li mu bëgg a coono père moom mooy daw bolo doon mooy woote wàllu. mooy woote wàllu. waaw li muy bëgg mi ngi père kii li muy def nii yëpp xam naa lépp. père ah. père dama dugg mbooloo baax. père père si néeg bu la dem moo lay wax fi ngay toog. Eh, eh, yaa ngi eh. dégg ut doole. mais kii ut doole moo tax ma teel a génn taw pour ñëw pour dal ko moom kii Ah. kii dama bëgg doole bu baax a baax a baax munul am am doole munul bëre la concerné du ma ko daan yow munoo ma daan daan dama ni eh, la munoo ma la dagoo ma la kar laa la wax bàyyi ma dina daan yow man du ma booy yi ngay kaay teg sa xaalis mooy ngay nax si biir géej bi di leen teg sa xaalis ban teg bu dee wóolu sa bopp da teg barki Serigne Bamba Mbacke bi nga borom daaw bu fekkente ni gëwuma ko yàlla moo tax rek borom daaw barki maam Thierno Ibrahima mu yaakaar man yow moo woowee ci pet ngay wax xam wax sa papa ba nga wax mu teg xoolal mu teg moom bu bëggee su ma la daanee après mu jël eh, man benn papa laa muy nooree nii. sa papa la da ngeen. man benn papa laa muy nooree nii donc si góor laa ko fekk nii ko peese ko. su ma daanee nga jël ko. donc si góor laa ko fekk man ab lëbu la man doomu sëtu lëbu laa. man sama booy bi ma la man doomu natt man góor du ma natt. ba mu nga am góor du ma natt ba loolu. man góor du eh, ma natt ma loolu waxaa tey. sa waay man góor du ma natt. waxaa léegi ma daal di la commencé def sa affaire yi nii zar man dama la depuis booy ma nekk booy di jàng arabe dina seetaan ngay bëri def ba xam say erreur zar man doo ma fooyee. yow mag nga de boo ma seetaan. non doo ma bàyyi bu nekk booy yow yow yow ma yàgg bu rek jéen kere loolu la doon wax. yàgg bëri nga. déggoo ma la man pas là. déggoo ma man sa église yéen ñëpp man sa église. yéen ñëpp yéen ñëpp samay yéen ñëpp samay sën ngeen. mais dama leen di caw benn par benn. mënoo ma na loolu dama leen di caw benn par benn. billaahi mënoo ma coow. non yow yow yow booy yow français nga nag. amul français ma baax na. amul problème waaye yow bu a baax li nga wax nii. moom la Boussine doon wax te bu taxawee moom moo jël. retire ça de man bul wax sër. di wax ay Boussine de yow dina wax sër foofu wax ay Boussine. ma la bul ma wax man dama wax ay kii de. yow benn laa nga da ngaa bàyyi benn laam nga xeex ci laam mooy da ngaa bàyyi mosoo xeex da ngay daw yow naxante teg xel ngay bëri dama muus nag waaw man xam naa la de dafa da ngay naxante de man doo ma nax de man doo ma bébé de xale bu ñuy nax de xale nga waaye maa yàq du ma yàq tout ton temps yow am nga jot dégg nga fii ak cinquante ans da ngay bëriwaat. man damay ñëw bàyyi léegi léegi mu nekk dama koy luwee dama koy fay ay zinc nekk. mu bu baax a baax. ay zinc nekk mu nekk mu ak yaay dama am. ambition de war nga jënd ay ciment wala bëgg nga ba pare. dama la fay naal de barki baa ma fay naal yow boo goroon yow xoolal boo boo toogee sama bopp sama bopp taalibe eh. Eh. da ngay kon da nga koy sant gërëm dëgg la amul problème yaa may saa ci làmb waaw mais man fay naal sa combat ba mu nooy sa dama eh, la sëñ bi fay jëli moo tax mu yóbbu ñaar ma fay loo ma maa la fay mais ñaar ma yow tax dama ni la jëli moo tax mu nooy de dama ni la fay loo ma maa la fay de fayoo ma maa la fay ko génnee de dama ni la fayoo ma maa la fay waaye dund moom waxal ci xel la sa ko bàyyi paase mënoo wax ak man ci xel nag maa la xel fuuf yow bër nga mënoo ma bu xel yow mbër nga bëgg ma bu xel yow ngay mbër lépp laa bu xel lépp laa mën a nekk lépp laa mën waaw yow yow mbër nga mënoo ma bu xel c'est impossible c'est inadmissible lamb la mënul bokk loolu teg ma teg loolu ma leen mënul nekk dof man li may bëre xajul sa bopp li may xoolal barki Serigne Bamba li may bëre xajul sa bopp lu may bëre hé hé toogal fii yow yow doo noppi yow la jërëjëf yaakaar naa ne foofu foofu am na solo trop Mansour gis nga ñaari xale yi seen waxtaan e may leen eh, ah, ah Zarko. man làmb man làmb mosuma mosuma ñàkk jom. waaw man dama bëgg yow man yow man dama bëgg yow Zarko yow man li ma doon man yow nangu ma ko yow. dégg nga ma est-ce que. dama ne la Zarko man damay liggéey damay def ay coono. liggéey wax noonu yëpp liggéey man damay teel a tëdd. mais dama ne la na nga fexe ba jour ji rek bul daw. waaye lu laay na nga taxaw rek jëmmal sa bopp ci moom Ibra Faat boo taxaw ma dóor nga daal eh? bul yooru yow boo taxawee ñu eh, boo gisee ñaari xale yaakaar naa ne génération bi sorewul ndaxte Zarko moo ko jiitu eh, waaye booy bi tam mi ngi def ay preuve ba yegg si fi mu yegg si lenn rek laa lay xamal Bécaye ci làmb waaw ñaari mbër yoo xam ne dañoo bokk carrière di bëree ba tey ñoo bokk génération. ñoom ñaar ki ñu bokkatul carrière mooy ñun nii maak Moustapha Gueye ndax bàyyi nañu làmb maam góor gi Njaay dóor na Balla Gaye mu daanu te boobu mat na ko bàyyi dëgg loolu déet làmb li ci am mooy lii nag lii moom ki tëgg combat am vraiment daa bëgg mu jar ñoom tamit ay boromi xel lañu am nañu dara xëqante jaay komba bi ku dee tëgg sa say xam-xam ku ci nekk fëkk sa morom ci kaw xel fu ngir ëllëg combat ba loolu rek lañ ci soxla mooy lii ñu def nii kontaan mais kenn ku ci nekk xam nga ni ko kurpañ soxla wuñ ko fi mais lii ñu def nii mooy normal bi baax na loolu la makkan soxloo li ki des mooy kii dafa toll ci temps nekk ci yoon di dem yoonam ñëw yàlla boole ko Zarko mhm. mais bu leen fàtte nii mbër bu ndaw bu ne bu mu jàpp mbër bu ko mag dara mu jàpp daf ko mage âge moo ko doole wala moo ko mën loolu amul mën nga cee nax sa bopp na nga jàpp ne adversaire pire ngay dajeel ku toll ci ku toll ci affaire waaw kii dafa jóge ci ay victoire yu mu tegalaan dem yoonam voyage la def victoire rek may ma ñëw waaw d'accord may ma rek ma ñëw kii daf fi jóge woon tukki def na li Balla Gaye 1 defoon mm. Balla Gaye 1 dafay jóge woon làmb ji xaw a doy waar ci moom bu échappé dem Espagne dafa sept ans ba ñu ne Balla Gaye bàyyi na làmb gay Gaye wàññeekuwaat ñu ne Balla Gaye ñoo na mais làmbam jeex na mu ñëw topp gars yi di contact di contact ñoom Alioune Seye ñoom Mohamed Ali ñu jox ko Assane baay Fall mu daan Assane Baye Fall ñu jox ko Kati mu daan Kati ñu jox ko tubaabu joor mu daan tubaabu joor ñu jox ko maam njambaan mu daan maam njambaan ñu jox ko fu manga deux mu xeex ak moom quarante cinq minutes te boobu bàyyi na làmb sept ans ki nga xam si dafa toll ci jamonoom di entraîné tey santi doole boo nee moom ma mag maa ko man wekki yow la da nax sa bopp. làmb bu ngeen bokk génération di bëri rek bu sabaa kenn kenn ëppul doole sa morom te taay bi ma gis nii ëppante ci doole day jafe. te bala ngaa xam loolu le jour de combat ñu taxaw ci diggu terrain bi da nga xam ne ëppante wuñu doole. la ca des nag mooy xel moo fay dox ak fit ak jom jërë ngeen jëf. jërëjëf ah laata avant ñu jot Hadj Mansour Mbaye ndaxte mënuñu waxtaan ci Gaston Mbengue te Hadj Mansour yëkkatiwu ci ay kàddu Pape Konaté ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal xam naa ni namoon nan la Hadj Mansour ne quitte di dañ ñëw léegi ci yow léegi nga baal ñu Pape Konaté ñu ngi lay nuyu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa te naaw bi ñu santee yàlla junni séenante bi ñu ngi ñaanal way jur yi yàlla yërëm way juri comme ni ñu leen bi ñu doone gone yi ñu ngi lay fay di la delloo nuyoo di nuyu assistance bi yëpp e, di la beral nuyoo ndax toogaay bi dafa am lu muy reflété ci ñëw tey nag damay indi taarix waaw ndax en 2006 toogaay bi dafa amoon waaw 2006 waay makan dinaa ñëw ci loolu si may ñëw nag dafay laaj ñu déglu ndax dama ne 2006 toogaay bi dafa amoon muy toogaayu CLAF Gaston nag bi nga xam ni moom la ñu dëppee bis bile wax ci moom dafay yomb ndax moom nekkul un promoteur dafa nekk un producteur des champions. Hmm. ndax dama fekke Balla Gaye 2 nekk mbër bu ndaw maanaam war a bëre premier combat ma gis ci image yi léegi ñu wane Zac Dieng. Gaston Production dafa nekk benn syndrome boo xam ni tey ci Sénégal dañ ko war a maanaam dafa war a nekk loo xam ni dañ ko war di euh, di di di di di waxtaane ndax xam nga li tax mooy euh, bu làmb egsee fii tey Gaston Production la te Gaston Production dafa nekk vague ndax su ma waxee Zac Dieng mm. ngeen xam ni am nay jamono moo nekkoon ki nga xam ni lépp lu taxaw ci combat ci wàllu Gaston Production moo ko taxawal. Mm-hmm. waaye bi bi mu jàll